ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si biti a gën samay waajur man samay waajur a gën waajur yenent bi ngeen baal ma ci li ma koy nettali Moussa Jaxate wax lii yenent bi gënuma gënuma waajur samay waajur sax moo leen gën ndax ñoom dañoo judd ci lislaam astaghfirullah waaw jaxate yaa ñàkk teggin yaay mag mu xamadi nii laa koy waxee yaay mag mu reew mag mu xamadi mooy Moustapha Jaxate da nga ñàkk teggin nag koo xam ne nii du ñu pardonné ku ko ñàkk teggin mu yenent bi moo tax terme yooyu moo gën a woyof ci yi ma la mën a adresse mooy Moustapha Jaxate mag mu réew la mag mu ñàkk teggin la wayjur yenent yàlla Muhammad duñ sa moromu wayjur du sa baay du sa maam du sa maam mataar yonent yàlla muhammad moo wax ne askan yépp bu ñu dajaloo sama askan a gën ci askan yi may tànneef bàyyeekoo ci ay tànneef yonent yàlla muhammad naka la mën a waxee ne moom tànneef la bàyyeekoo ci tànneef famille bi mu bokk muy Qurayshin bani Hashim mu ne mboolem famille bu ñu dajaloo sama famille ci gën ci hadis yu wér yow nga mën a taxaw ne sama baay sama yaay ñoo gën baay yonent bi gën waay waay yaayu yonent bi ndax lan mooy sa lay mooy ñoom judduwuñu ci lislaam kan moo la wax ne way jur yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yenent bi bi nga koy yónni fekk na ñuy dund ku la ko wax bag naan judduwuñu ci lislaam nan la ñuy mën a juddoo ci lislaam nan la ñuy mën a bokkee ci lislaam te fekkewuñu lislaamu yenent bi la doon lislaam ci seen jamono ci lañu bokkoon waaye yow nga mën a taxaw am ñàkk teggin gu toll ni ne sa baay ak sa yaay ñoo gën bàyyi ak yaayu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam aka ngaa ñàkk teggin te wax wax ju bon ju ñaaw joo war a tuub na mu gën a gaawe ndax kenn du la ko pardonné te lii benn ñamale la rek fii mais danaa ci def aaxiru zaman spécial ba wan la ba wanaa leen ñu naan way jur yonent bi safara lañ jëm mën a leen ñu ijji ndax xamuñu inna abi wa abaka fi naar lan lay tekki moo tax ñuy wax loolu noonu na naan way jur yenent bi sax ñi ngi safara ndax yenent moo wax ne inna abi wa abaka fi naar xamuñu dara xamuñu lan mooy ab ci arab te loolu xëy na lu wax ju noonu la mos a for dégg ku ne waaw yenent bi nee yow sama baay ak man sama baay ña nga safara te xamuñu lan mooy ab ak hadis bi xabaru ahad bi mu doon ak alxuraan ni mu saxalee ne ñi juddu te boobu noonu la yàlla yónniwul yenent yàlla du leen du leen mbugal yàlla du mbugal wenn xeet te yónniwul yenent ci seen biir yaay amina baay abdallah dund amul yenent bu yàlla yónni ci jamono jooj noonu la ci ahlul fitra la nu bokk yenent yàlla Iisaa dem yenent amul ci ginnaaw yenent yàlla insa ak yenent bi ñoom ci période boobu lañu ñu bokk ñooñu borom xam-xam yi jamaahir ci ñoom dañ ne ñooñu yàlla topp leen lu leen di dumaa ëllëg ndax yónniwul kenn ku naan leen lii dagan na ak daganul xaraam na xaraam lii diineem lii du diine yow nga mën a taxaw am ñàkk teggin gu toll nii na yow sa baay ak sa ndey ñoo gën way jur yi nañ ci Yàlla Muhammad yu tedd yooyu noonu la yaa wax di dëgg man de sama baay sama ndey sama maam samay sëriñ samay maam mataar ñëpp dallu way jur yi nañ ci Yàlla Muhammad leen gën dàllam laa wax moo leen gën naka la yeneen bi mën a gënee lu yàlla bind ba noppi yàlla di ko jël di ko jaarale ci ñoo xam ne nii yow sa ndey ak sa baay moo leen gën mais kon loolu dafay dàq yenent bi ni mu wax ne moom ci ay tànneef rek la bàyyee ko yàlla dafa protéger askanu yenent bi ba jaahiliya muy ceddo di lañ doon jaar ci njaaloo lu bon ak di juddu nee na man sama askan yàlla daf ko mos a protéger mosuma jaar ci maamu caaxaankat kooku boo ko xamul da ngay dem nga laaj ko mag ñi fi nekkoon bind ci moom demal ci Cheikh Al Hadj nga laaj ko kan mooy yonent yàlla Muhammad ay maamam dana la wax maamam yi ñoom ñooy kan baayam ñoom ñooy kan laaj ko Serigne Touba laaj ko maam Baye Niass laaj ko Baye Niass borom xadis safal Moustapha min Moustapha wa safa zal Moustapha wa suufu min ajli qurbaaw demal nga laaj ko Cheikh Saadu Abihi wuldu Cheikh Mouhamadul Fadal kan mooy yonent yàlla Muhammad ay maamam mu ne la huwal abaru ibnul abar ibnul abar ibnul abar barun ila abil bashar musalsalun mi man saja te aadama ba ci maam Abdallah amu ci maamu caax moom yonent bi yow nga mën a ñëw tekki woo dara naan yeneen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama baay sama ndey moo gën ay maamam ak baayam kan moo xam ay maamam ak baayam waxuma wax ji mais waxin bu bon bu ñaaw bi kan moo leen xam yow yaa leen xamul yow mi kenn xamul sa ndey ak sa baay te wax ji nii laa ko koy adressé ah te bu taxawoon ma adressé ko ko nii te nii ci gën a woyof ndax maal ñeneen ñi ñuy dégg ñàkk nga teggin trop ak keneen kuy wax wax ju mel ne ji nga wax wax jooju na dakk toog naan booy jur yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ña nga safaraak sama ndey sama bàyyi leen gëm na wax jooju dakk du dëgg demal nga liiri téere imaamu Suyuuti bi mu bind uniquement pour mu wane ne ñaari way jur yeneen ci yàlla Muhammad sax far dañoo far dugg ci lislaam gannaaw bu yàlla yónnee yonent bi ci kéemtaanu yonent bi dekkal na leen bañ gëm ko demal nga gëstu ji téere boobu lan la ci indi ci ay lay demal nga gëstu ji ñoom Bayhaqi seen xadiis ya ñoom Tabaraani seen xadiis nga xam ne nii wane nañ ba xadis bu yéen ti waxee ne maa leen gën sax bàyyi xadisu baqi ba ibnu kasir ne am na ay shawahid yu koy dëgëral soo jàngul nga tëj sa làmmiñ nga noppi mais sa wax ji rëy na torop te ñaaw te bon na torop wari way juru yeneen ci yàlla muhammad duñ sa moromu baay duñ sa moromu sëriñ duñ sa moromu mamataar war a dem bi ma déggee wax ji dama tiit daf ma choqué immédiatement laa bind sama page Facebook ne man de sama ndey sama baay samay maam samay sëriñ yëpp waajur yi ci Yàlla Muhammad yi moo leen gën te loolu mooy pas-pasu jullit ñu sell ñëpp pas-pas soo xamul kan mooy Abdallah boo xamul kan mooy Amina demal nga laaj ko Cheikh El Hadj Malick bam naan li kay yusayiraha sadfan li durratihi aminatu naqiyat an saairi tuhami jigéen ju benn tuuma taqul bay Abdallah xoolal âge bi mu génne àdduna sax ay 17 ans ay 18 ans ci la génne àdduna yàlla protéger ko ba ba yeggul sax ci fa ñuy tollale nit naan ma ngay am bàkkaar a yu mel noonu le kooku yow naka la ko sa ndey ak sa baay mën a gënee amina mii nga xam ne Cheikh El Hadj Malick nee na luy tuuma ju muy tuumaale jigéen a amina kaccat macca set wécc jigéen ju sell dañoo génn màkka dem ba ci giir ba ne zuhrata seeti jigéen ji gën a tedd ci jamono jooju noonu le kooku lañ tànn mu war a denc leeru yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leer googu ci jëmm ju mu jaar kooku nit dana ko gën yaay cuune yaa xamadi kan mooy yeneen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa leer leer leer googu leer googu leer googu fi ko yàlla jaarale wa fi sulbin li ilyasin yu labbi wa yasmau l mawasinu mawasimu bil adini leer googu nga xam ne maamam Ilias leer ga jaar na ci ndiggam rek muy dem màkka di aj naan la bayka leer gi ci ndiggam di wax la bayka laahuma la bayka te leer gi boobu ci maamam jooju rek la nekk muy Ilias wala iyaadu billah tuubal safaa Diakhaté na ko senegal yëpp wax na tuub te dellu ginnaaw ci wax jooju noonu li bon na ñaaw na ruslu na yeneen ci yàlla Muhammad weem moo ñu gënal lu yàlla bind dal ku bokk ci moom moo ñu gënal lu yàlla bind ña ñuy wax kay mooy ñi nga xam ne gannaaw bi ko yàlla yónnee lañ ñëw ci askanam lànkal ko ay abu lahab ñu mel noonu te ñooñu yàlla def ko yónnee ñu lànkal ko ñooñu la yet bi dal ci seen kaw waaye ki nga xam ne nii yàlla yónneegu ko yeneen ci yàlla Muhammad waa arbaatin aw sittatin halakat umu nabi bi ab waay aw yu duxami ñaari weer ci biiru yaayam la bàyyam génn àdduna quatre ans ñii ne six la la yaayam génn àdduna quarante ans ci lañ ko yónni islam ñëw ñooñu lan lañ jotee yónent ci yónent yàlla Muhammad gi ko yàlla yónni ba nga naan man samay baay sama yaay jullit lañ woon te ñoom nekku ñuy jullit da nga xam lan mooy jullit sax yow ñooñu jullit lañ woon te la ñu nekkoon jullit ma nga dalee ca maam Ibrahima wàcc ci suuf yàlla ñu yàlla yërëm ñu ngi jéggalu bu baax wax ji defe naa xanaa ñi ko déggoogul mais ku déglu wax ji waxuma sax ñu nettali la wax ji mais boo ko dégloon façon bu ñàkk teggin bi mu ko waxee ci mag mu toll ne moom responsabilité yi nga mos a yor yëpp ci réew mi ngay défendre ay nit ñu tekkiwu dara fële taxaw naa da ngay tontu imam bu wax waxi boppam boo wax ak imam bi nga wax ak way waajuram imam bi dafa la wax ne way jur yonent bi nangam ba nga naan da ngay tontu di tudd way jur yonent yàlla Muhammad kooku ñu ruusanteeg suñu digganteeg ku dul ku ko gëm waxuma sax ku ko gëm nekk ci biiram ne mi ngi koy jéem a këll këlli mayuñ ko kenn waxuma di ñàkk teggin way jur yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ña nga ca ajjana bi awnillahi wa quwatihi wa qudratihi yaay Amina Baye Abdallah laa wax ne ña nga ca ajjana kon ndey sa baay moo ñu woon ma nga ca ajjanaam nekk fa ku bokk moom bañ ni tudd ndeyam ak baayam wax ko naka su dul noonu rek na ngeen ko wax ne ko na rectifier li mu wax lu ko may ku bokk ak Moustapha Diakhaté danga dégg dana dégg lu ko naqari ci ndeyam ak baayam ndax moo ñàkk teggin ndey yonent bi ak baay te dañ ko ko pardonné ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si biir réew da a jot moo leen vidéo ngir mën a xam nga xam